Macron ak alquranu karim président Macron bu xam nga lan moo ma métti ci Moustapha Dramé li ma metti mooy nan ngay duulee di fen say fen di waat alquranul karim élection yi Macron dafay ñàkk te Macron moo gañe sëriñu Sénégal yi lan moo tax ñu mën a duul waaye cottu nday loolu waaye sëriñu Sénégalais yi mën nañoo fen. sëriñu sénégalais yi concours duul bu amoon sénégal ñu ne dañuy tànn ay doomu aadama yu war a dem ci concours duul yi kenn jërul muy bindu Moustapha Dramé rek mën nañoo présenté ak yeneen sëriñ yi nekk sénégal fen ngaa fena fena fen ba kenn xamul looy nuróol bay leen bu boo alxuraanu karim di duul ak di waat alxuraanu karim seen leen yàlla ci li di def Moustapha Dramé mën ngaa duul mën ngaa fen Macron moo gañee France dayam moo ko gañee bu ma doon Macron na boo bis boo duggee biir France te territoire France ah pono camion laa lay laa lay laa nga yóbbu Mali bi mais c'est route Sénégal kenn mënut a bon gars yi looloo waraloon vidéo bi